waxtaan feddale ko ci kóllëre eh, muy tànku ngërëmit ñu àndoon ak délégation boo xam ne mbokk eh, na ci Moustapha Sarémé yor suñu école du parti formation bi may mën di yey ak Mbène fay ñi yor ñi jiite jigéen ñu parti bi eh, ak Jibi Gueye Ndiaye mi yor sama protocole doyen àll kan nga xam ne mooy mooy suñu suñu bàyyi suñu mag eh, yàgg ci xeexu politique trop tamit ñu ne woon rek dinañ ñëw ci cadre eh, doxu jàmm doxu nemmeeku ak ndoxu gërëm yi nga xam ne ñu ngi koy dox dinañ ñëw ziar si leen. jërëjëf na gën a teel waaye ci niñ koy doxalee amul benn ordre de préséance dañuy seet rek li gën a jàppandi. Hmm. ñu def ko su ma nee mënoon na gën a teel nag mooy. Euh, taxawaay bi ngeen taxaw fan yi ñu wees te wéyal di ko taxawal bu léegi nag ci mbir mi nga xam ne am na ci réew mi te concerné ñu dafa am valeur symbolique bu am solo ci ñun du ma ne plus que tous les autres mais en tout cas amul benn bu ko ci ëpp solo li ko waral nag mooy euh, bi coow amee da ngeen jóg spontanément xaaru leen donte ca gannaaw ga suñu xamee sorewuloon noonu waaye spontanément da ngeen jóg def la déplacement ñëw sama kër te damay faral di wax ni ci jamono yooyu ku ñëwoon sama kër rek dafa am dafa fekk am nga ay principe ak valeur yoo gëm ndax kër goo xam ne c'était mieux gardé que la maison du président de la république <laughs> ah <laughs> ñu teg ay camion ki ay char fu ne wax ma sax ku ñëwoon sama kër waaye ku duggoon ci koñ bi rek ndax léeg-léeg ñu Sénégal dañoo xaw a ragal alkaat yi donc euh, ngeen bàyyi seen yitte yëpp mm. déplacé wu ñëw ñëw euh, apporter ñu seen soutien ak seen solidarité wax fa ay kàddu yu am solo pare biral koy ci biti ba ñëpp dégg ko yemul ci loolu euh, ngeen jëlaat seen responsabilité génn ci ay médias hmm. am taxawaay bu bu bu méngoog loolu loolu sëñ bi dama bëgg ngeen xam ni euh, on l'apprécie à sa juste valeur. parce que nit boo tollee ci épreuve rek ngay xam ñan ñooy sa nit wala ñan ñoo mën a ne sa nit épreuve la woon mu doon génne nañu bàyyi ba lii yëpp jeex bu dee yàlla muccal na ko si jàmm. mu génn ci renforcé ñu dem xamante ak moom mais da ngeen bàyyi ci digg épreuve bi ngeen def ko loolu nag bettuñu parce que euh, fa ngeen bokk li ngeen doon li ngeen gëm ak li ngeen di dund moo ànd ak loolu c'est le contraire qui aurait pu être étonnant encore que suñu leen gisuloon it du tax ñu am ci jugement bu défavorable parce que mënoo gis ñëpp bëri na ñoo xam ne gisuñu leen te ña nga toog fu ñu toog di ñu ñaanal loo xam ne peut-être ki ñu gis sax ñaanu ko bëri na ñoo xam ne gisuñu leen waaye ñu ngi toog fu ñu toog di wax ak nit ñi di ñu défendre ba seen xol jóg si kon donte gisuñu leen woon sax du tax loolu dindeeku waaye nag bañ leen gisee dafa gën a renforcer loolu te mu yoon ci moment yoo xam ne soxla woon nañu loolu parce que nit ñoo dëgër dëgër dëgër da ngay soxla su xeex jotee nga compter te force Bien sûr. compter tes amis. Mm-hmm. tes soutiens et tes alliés. Bien ñu fas yéene wax ni loolu jàpp nañ ko abadan euh, mu war a doon nag laytaayu kóllëre gi nga xam ne bëgg nañ mu dox suñu diggante mm-hmm. te doon loo xam ne day sax kóllëre googu nag li ko mën a dëgëral mm-hmm. mooy du politique rek a koy lal moo tax c'est toujours un plaisir ñu ñëw ci bërëb bi mel nii mooy ay valeur moo koy njëkk lal valeur nag soo koy seet fu ne ba romb nitu diine defe naa seetatoo valeur mm, valeur yu dëgër moo ko waralal euh, yoo xam ne ci jikko la ak ci ay principe mm. yu jëm yëpp ci bëgg lu baax mm. bañ lu bon bëgg lu jub bañ lu dëng bëgg dëgg bañ safaanoo parce loolu euh, dafa mel ni ci benn niveau ci Sénégal tumurankeel na fi torop sax hmm. te suñu xeex yépp nag ñun ñii ñëpp mooy nu ñuy def ba delloo ko si hmm. parce que tant delloo si wuñu ko hmm. gëw mu ni réew mi mun nañ koo tabax niñ ko bëggee réew moo xam ne boo xasee boo soxlawee ñëw taxaw ci kanam Sénégalais li la nga wax ko buñ la xasee ba ba jox nga nekk ci nax ak muusante ak wax loo dul def dige loo loo loo mënut jël loo moomut mm-hmm. seddoo ko yàgg say mbokk mm-hmm. yooyu yëpp c'est des contre-valeurs yoo xam ne bokk na ci li xëcc réew mi mm-hmm. ci suuf yeneen contre-valeurs yi mooy jiital sa intérêt bopp ak intérêt ñeneen lu dul sa intérêt waa réew c'est moo tax ñun toujours ñuy wax waxu patriotisme mooy dañu war a fexe ba du ñuy def rek nañu jiital d'abord intérêt réew mi tey ci suba am na ñu ñëw doon def benn documentaire ñëw kër ga ñu waxtaan tuuti may leen soo gisee dañ man dama jàpp dañu war a déplacer curseur bi mooy wàññi di wax wax boo xam ne dañuy tuumal keneen ndax loo wax ñu ne diw moo ñu teg réew réew sàngam ko teg puissance sàngam ñu ko teg ñoo ñuy imposer lii loolu tant que ñi ngi tudd ñu avancé dafa jot léegi ñu ne lan moo ci suñu responsabilité lan moo tax yow ñu ne la yaay président la république signé jot mu leer na ni lii du sa intérêt réew nga signé ko te teguñu pistolet sa bopp <laughs> naanaluñu la saafara nga dem signé loolu kon nañu njëkk a régler suñu problème nañu njëkk a balayer devant notre porte mm-hmm. parce que Afrique nag am na ñeneen ñu koy def tey mm-hmm. am seen fulla am seen fayda di défendre seen intérêt réew mm-hmm. donc discours défensif bi dañ ko war a bàyyi mooy diw moo ñu teg diw moo ñu teg dès lors que ne nañ pays bu indépendant nga te kenn mënatul jël ay canon ñëw ne la di nga signé mbaa ma bombardé la loo def ci sa bakkan nga ko teg kon loolu toujours ci contre valeur yi la bokk te gëm naa ni euh, ñi ñuy wooteewu ñëpp ñi suñu royukaay yëpp loolu la xeex parce que Cheikhul Khadim defe naa xeex ngir dignité nit ku ñuul te loolu weesuwul patriotisme ak indépendance tekkiwul da xeex keneen tekkiwul racisme waaye fexe ba kenn ku ne ni muy xoolee boppam mun laa xoolee noonu neewa mu xoolee lu ëpp lool de parce que mhm. ñëpp nit lañu c'est waaye respect bi mu jox boppam mu jox la ko mhm. defe naa loolu ñëpp xam nañ ni moo nekkoon mhm. euh, le fondement même de son combat exactement kon ñun ñi wootewu ci nañu ni ñoom suñu royukaay la ñoom la ñuy topp te ñu nekk ci géewu politique bi dañoo war a dellu si valeurs yooyu mooy suñu dignité en tant que sénégalais newuñu kenn mu raamal ñu waaye ñun mënatuñu raamal kenn loolu dafa war a dakk neewuñu kenn mu jox ñu li mu yor waaye mënatuñu jàngu ñuy jël li ñu li ñu moom ñun di ko yóbbu sama bopp la gënal nag tekkiwul ni bañ naa la kon loolu bokk na ci valeurs yi may wax ak contre valeurs yi may wax ñu am ci mbégte nag war cee mën a waxtaan ak jëflante ñu mel ni yéen parce que damay wax toujours ni am am na lenn loo xam ne moom la politicien yi réussir ci réew mi xaw ma nag ndax tradition bu ñu hérité la wala lu ñu fenkal seen bokk la keroog bu ñu jotee indépendance waaye bokk na ci li ñu réussir mooy fexe nañ ba gëmloo ni képp fu koo xam dañ lay xoolee bëtu nitu diine danga war a dem toog fële ci jàkka ji yor sa kurus di werd waaye li xew ci réew mi ak ni ñu ko yoree ak ni muy doxee seen waru cee loolu gëm naa ni chef religieux yu mel ni yéen da ngeen ko démystifier da ko démystifier tey ku yaakaar ni mun nga tabax réew te ñi ëpp solo ci réew ma nit ñi wóolu leen yaakaar leen nga beddi leen teg fële dangay nax sa bopp loolu mënul ne ba tax nag loolu ñuy tàmm di wax ñun nii suñu référentiel de base dafa am problème mm-hmm. dafa jot ñu réfléchir ci suñu propre modèle modèle bi dañ ko hérité rek continuer ci. mais mosuñoo taxaw seetlu. ba xam ndax modèle bi méngoo na ak ñun. dans le respect de toutes les couches. de toutes les croyances. de toutes les ethnies de toutes les régions. de toutes les religions. mais ñu seet ñun lu méngoog ñun. ñu defaree ko noonu mooñee ko ba mu ba mu dëppoog li ñu bëgg ñun. defe naa ni loolu. dafa ànd ak ñu mën a nangu. ni les hommes religieux. du rek ñoo xam ne sapeur rôle sapeur pompier lañ leen war a doy. c'est ça à dire ñun les acteurs politiques gannaaw bu ñu defee suñuy responsabilité bu mbir mi tàkk nag. Mm. ñu doog a daw ne leen kaa leen fay. Mm. waaye en amont lañ leen war a associé ci lépp. exactement am na benn pàcc ci sama programme. Mm. en tant que candidat 2019. Mm-hmm. nit ñi sax dañ koo essayé woon wëlbati am na ñu dem gis kilifa di ne leen waa ji. Mm-hmm. yéen la bëgg a xeex. <laughs> mooy li ma ne il faut institutionnaliser les relation entre la surtout. faut pas que ce soit tabou ni ñuy voté budget ne faju voté budget ne njàng voté budget ne lii pour tabax ay tali la lii pour léeg-léeg lii ñun ñi ñëpp soxla nañu loolu waaye nag noonu la ñu suñu ruux dund mm. ay jullit lañu ay catholique lañu nitu croyance lañu kon loolu it il faut ñun ñeme ko woteel budget mm-hmm. comme soo demee yenn réew yi ni mu amee woteel mm-hmm. ko budget ne lii dafa jëm mm-hmm. ci lu war a suqali diine gi lu war a jàppale diine gi lii la ñuy jàppalee les lieux de culte mhm. lii la ñuy jàppalee les les de formation mhm. ci diine gi mhm. ainsi de suite ñu budgétiser ko am am sax un ministère ki s'en occupe de manière transparente surtout ak li ma ne woon au plan institutionnel assemblée nationale doy na ci institution réew mel ni Sénégal yeneen yi ñu fi defal yépp amul benn njëriñ ci réew mi waaye mun nañu am beneen institution boo xam ne benn genre Euh, majlis lay doon boo xam ne kilifa diine yi ak kilifa aada yi dañ fay am seeni représentant mu doon une chambre consultative bu ko defee bu ñu nee am nañu pétrole ñu defar document yëpp teg teg seen loxo fii la ñu am pétrole bi quantité bi nangam la nii ak nii lan moo ci seen xalaat bu ko defee au moins dañu recueillir seen avis en amont ci ni ñu war a defaree mbir yi même si c'est pas un avis mais au moins dinañ ne dinañ ñoom dinañu xam ni ñu seen loxo ci doxalin réew mi mhm. yooyu c'était incompris par certains mhm. pas incompris sax mais des gens sciemment mhm. ñoo ko wëlbati naan dafa bëgg a xeex lii dafa bëgg a def li waaye lan moo gën a rafet loolu soo buggee dëgg-dëgg ñu cëral jëmmal diine ci réew te yeneen réew di ko def muy dox kon loolu ñu mel ni yéen am li ngeen xam li ngeen doon te assumer ko ba mu mat sëkk waaye it lu keneen jàng jàpp ni moom jox na ko avance. ñu leen ñu ñuy wooyee intellectuel wala leneen. kenn gën ngeen ko jàng. ba pare ngeen dajale ñaar yëpp gëm ni nag da ngeen war a bokk ci réew mi nu muy doxee. ñooñu en tout cas ñun saawar nañ ci liggéey ak ñu mel noonu. talal nañ leen suñu loxo. ci tey ci ëllëg ak ci gannaaw ëllëg. boole kook euh, bu dee it sorante euh, rawante nañ ci at gëw ma ni mu doon lu bëri. jàpp jàpp naa ni xaw nañoo bokk génération te dafa am loo xam ne toujours day concerner génération ñu ànd ceeg mag ñi ñu baax ñi ñu ñuy jàppale ànd ceeg suñuy rakk waaye dafa am benn responsabilité boo xam ne chaque génération dafa war a identifier xam ne lii ñun ñoo ko war a assumer ku fi nekkoon nag depuis Senghor euh, ba tey ji ñu jox la chance joxaat la chance fu ne nga jaar fa te résultat amul war ngaa mën a ne nag nañu effacé wu bàyyi ñeneen ñu essayé ndax peut-être dina dina soppi mhm. kon sëñ bi bañ a guddal di wax ni ñu ngi leen di gërëm di leen sant ci taxawaay bi di leen gërëm di leen sant ci kóolute bi di gërëm sant ci soutien bi ci sama tur nag mhm. sama turu njaboot mhm. sama turu parti sama turu ñi may àndal ci politique yépp waaye mun naa ne sax am naa sañ-sañ wax ni ci turu sénégalais yépp nag parce que li fi xew ci fan yi ñëpp xam nañ ni du mbiru Ousmane Sonko rek sénégalais yi jóg ku yaakaar ni waa Pastef kese la Pastef amul lu toll noonu ci militant waaye Sénégal dañoo jóg pour des principes et valeur valeurs tuuru sénégalais yi yëpp nag ñu ngi leen di wax jërëjëf di ñaan yàlla mu yokk leen ci bépp fànn ci lu baax euh, gën a dëgëral taxawaay bi lii nga xam ne mooy suñu bébét ñun ñëpp suñu réew te nag muy lu ñu war a def parce que fu ñu taxaw ne Sénégal mag ñi dañ fa ñaan ñaan nañ ko ba noppi kon su su dee ñi ngi am yenn gàllankoor ba léegi ñun ñii di dund tey ñoo war a xool suñu bopp. parce que yàlla du la jox lépp yàlla du la defal lépp yàlla du defal lépp am na loo xam ne yàlla xam na ni mënal nga ko sa bopp mu saa mu xaar ba nga def ko boo demul nag ba sës ba def li nga mën yëpp ba naan matara nasrullah yàlla day toog di la seetaan moom it mhm. donc dafa am loo xam ne ñi ko waroon def def nañ ko te gëm nañ ni jeexital baa ngi fii ndax looloo tax Sénégal tàkkagul waaye pour ñu passer à l'autre étape mooy defar Sénégal ba tey tubaab mooy toog fële nu may def ba émigrer Sénégal et non le contraire loolu suñu responsabilité la ñun tey yomb na nag mooy delloo si valeurs yi deselu jikko yi jiital suñu intérêt national bañ ngerbeek corruption bu bëri bi yërëm nit ñi population yi am na loo xam ne bu ñu ko tëral rek ci diir bu gàtt mun nañu soppi réew loolu nag gëm naa ni dinañ ci ànd bu soobee yàlla te yàlla dinañu ci jàppale bu baax baax kon ñu ngi leen di gërëm di gërëm ñu fi teew ñëpp nag euh, wax dëgg yàlla kontaan nañu ci ci ci ci dalal bi tooyal na suñu xel gis naa sax ñoom may mun a di fi di fi tasu Moustapha Sarr di yëngal ay tànk kon yàlla yàlla nangu daal yàlla na yàlla nangu jërëjëf jërëjëf